في الفصل الثامن من كتابه لما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ومنها يعني ومن آداب طالب العلم أن يتورع في عزوه الأقوال فلا يعزو إلى مجتهد قولا ولا مذهبا إلا أن قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات في ñu ديمبو démb foofu la ومن هاتم mhm. wa min ha te moo ne maanaam kon dañuy jëlaat Ah, radiyallahu anhu bokk na ci yaani mi ngi ci namm mhm. wa min bokk na ci aada bi teggini taalibel almi aji sàkk ji xam-xam an yata warra ci mu sàmm mhm. fii azwihi ci askanale ci dàkkantale ci dàkkantale gi muy dàkkantale al aqwaala waxi fala yaxzu warul dàkkantale ilaa mujtahidin ci ab mujtahid imaam qawlan wax wala mazhaban du caageen jubluwaay mazhab ak gis-gis illaa lu dul inqaalahu su fekkee moom moo ko wax walam yarjete dee lu anhu ci moom wëlif ko wax jooju ilaa an maata mbet ba ba ni mu génne àdduna fa jamia ma mboolem li nga xamante ne jaa dikk na an sharia tukkee ci kii tëral sharia bi te mooy yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. laa yusamma déeful tuddee loolu mazhaban mazhab li ahadin ñeel kenn bal li fi nekk huwa loolu kat mhm. shariatun shariat la yajibu boo xam ne war na al amalu bi biha ci moom mhm. ala kulli ci képp koo xam ala kulli man ci képp koo xamante ne mhm. te dayyana diine woona bi diinil islaam ci diinil islaam def koo baaxoo di ko jëfee wa kadhalika ni ki noonu maa fahimahoo li nga xamante ne moom la dimaa lépp loo xamante ne fahimahoo dégg na ko comprendre na ko asxaabul mujtahid ña nga xamante ne ñoom ñooy àndandooy ñi nga xam ne ñoo bokk ci ngiru boobule mujtahid boobule imam min kalaamihi ci ay kàddoom kooku laayu sama defu ko tuddee mazhaban mazhab la hoo ñeel ko waxatte dëgg dëgg kasura bari na tasaahula lu muy sàggan loo sàggane nga xam ne moom lay sàggane annaasa nit ñi fii zalika ci loolu xattaa mbétaa saw ñuy dàqantale ñu ma dégg-dégg kalaam kàddu al fii muallifina ñi nga xam ne ñoom ñooy taalif yénn téere yi wa sharihina ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy shara téere yi ak xadiis yi ak yu demee ni ki noonu ilaa mazhabin jëm ci mazhab zalikal mujtahid askanale ko boobu mujtahid alladi bi nga xam ne xalladuhu ñu ngi koy taqlid wan xalla mu jublu nag al amru mbir mi mujj na al amru mbir yi taqlida ah, ah, ah, maanaam mu taqlid baaduhum leen ci ñoom baadan la ca des maanaam mujj gi fii lañ fii la yaatalu loolu loolu la ñu waroon yaatal maanaam mujj gi dañuy dem ba léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne masalan dañuy topp yenn yenn mujtahid bi maanaam masalan tey da ngay gis koo xamante ne day ñëw daal ne mazhab xanafi yi nangam la wala mazhab maliki yi nangam la wala mazhab shafii yi nangam la wala mazhab xanaabila euh, nangam la rahmatullahi alal jamii fekk seen mazhab du loolu exactement te loolu booy topp booy topp boo bëggee xam mazhab yi dëgg-dëgg il faut moo tax ngay dellu seen vrai téere yi sa segg mazhab yi mm-hmm. seen vrai yi segg mazhab yi am maa waxu imam yi ci seen bopp nag lool tamit fo ngay delu ci wax yi nga xamne ñoy toxal deug deug waxu imam yi en même temps nan comme par exemple bu dee xanafi da ngay gis dañ nan imam abu hanifa rahmalahu li la wax as sahibani li lañ wax manam ñaari andando bi moy kat muhammad ki la qadi abu yusuf ak muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmatullahi alayhi wala mu ne nangam ci suñu mazhab bi imaam bi li la wax waye nak az-zufar li la wax ak yu mel non maalik itam day am rahmatullahi alayhi li mom la imam malik wax waye ibn qasim li la wax et cetera léegi nag bu ñu nee mazhab bi ci boppam nag ne lii la mooy mazhab ngir bi. maliki yi wala xanaf wala yooyu rahmatullahi alayhim bu boobaa nag loolu nag dafa laaj beneen xeetu compréhension boo war am mooy nan lañuy xamee ne wax ji mooy wax bi nga xam ne ñi bokk ci ngir bi loolu lañ dëgëral. Mhm. mais daal am naa askanale imaam bi ci boppam wax. Mhm. wala yooyu kooku dafa laaj geneen segg gu gën gu gën xóot goo xamante ne gu gën a maandu lay doon. Mhm. waaw boobu loolu moo xaw a gën a jafe tuuti mais de toute façon mazhab bi maanaam xam mazhab bi moo ëpp solo nga xam waxu imam bi loolu tam beneen affaire la xam mazhab bi moo ëpp solo nga xam waxu imam bi parce que waxu imam bi mën na fee nekk waa mazhab bi daayifal ko waa mazhab bi ne déedéet wax jooju dëgërul suñu mazhab finalement lii la parce que finalement lii moo gën a dëgër ci waa école bi parce que mazhab moom école la rek voilà dégg nga doctrine la waaw mu ne kon nag léeg-léeg ngay gis ñoo xamante ne mbir mi day dem ba léeg-léeg tey par exemple booy liir téere sharh hadith si wala yu mel noonu léeg-léeg nga gis ci ñu ne mazhab xanafiya nangam la wala mazhab maliki nangam la yow xam nga ni mazhab maliki du loolu yow mi xam mazhab maliki <laughs> xam nga ni mazhab maliki du lii li gars yi wax mhm, voilà mais ñoom dañ ne maliki yi loolu la ñu fekk maliki yi waxuñu lool mhm. wala ñu ne et cetera mu ne nga gis tamit loolu lay wax nii léeg-léeg mbir mi day dem ba léeg-léeg nga toxal nga gis kuy toxal wax jooju di ko toxalee ci ñeneen maanaam ñuy taqlid ñeneen ñi seen bopp. tey par exemple tey boo bëggee xam dëgg-dëgg mazhab maliki xoolal tamhid li muy baax baax baax tamhid mhm. ak istidkaar boo bëggee xam mazhab maliki dëgg dëgg dëgg doo sukkandiku sax ci tamhid ak istidkaar ci char ci xadis ci moxtasar xalil ak charx yi ngay sukkandikoo xaashatul bunnaani mawaahibul jalil xaasatu dasuuqi bi sarxul kabir bu euh, dardiir bu ibnu arafa yooyu noonu ngay sukkandiku ci que ñoom segguñu mazhab bi mazhab bi dëgg dëgg dëgg ñu ngi koy seggee ci mu mudawana ak ziyaadaat kii euh, euh, an nawaadir wa ziyaadaat bu ibnu abi zayd al qayrawaani rahimahullah après mhm. non mu watta aussi mais en fait. muwatta aussi ci la bok en fait dafa am ben dafa am ordre nu maliki tege tegee mbir mi tax imam Malik waaw rahmatullah alayhi bind euh, muwatta waaw yow euh. nga bo boo buggee bo boo xam mazhab maliki mu dawoon nga cité pourquoi alors que mu wattal imam malik bi et que affaire yep ñu ci biir non à la base wala euh, voilà voilà légui en fait lolu voilà lolu mooy la bu am solo effectivement <laughs> jazakallah xayran en fait euh loolu li ko indi. Mhm. mooy mu da mu waxta imaam Malik rahimahullah da ko bind mu nekk téere xadis on est d'accord léeg-léeg am na ay ixtiyaaraat d'ailleurs mu waxta yi sax dañoo bëri mu waxta yi ay ay ay ay façon lañ. ay version lañ ay version lañ. diggante mu waxta mais bu ñu ko joyeelee dafa am muwatta bu ñuy wax mooy bu yaxya ibnu yaxya allaysi rahimahullah. mu nettali woon nga histoire bi ci ci bañ kii nettali woon nga lu jëm ci loolu. mooy ba nga nekk am na ku solo mu wat la ci lii. am ku solo ci lii. mais ku solo ci lii waxam moom moo gën a dëgër que ku solo ci lii parce que sëriñ bi après dafa dafa bëggoon ñëwaat ci ci ci mbir mi. voilà daf ciy dellu parce que imam Malik rahimahullah daf ko jàngale pendant quarante ans. chaque année ay nit ñu bëri ñoo ñëw di ko jàngee si moom loolu la. di ko solo ci moom moo tax mu watta yi nag dañuy gën a dëgërante. Mm-hmm. comprendre waaw non seulement dañu gën a dëggalante mais dañu gën a soppante xool tey imam imaginel bu bu yaxyaa am na yaxyaa al-Laysi bi rahmaallah buñ joyelee buñ ne Muwatta bu imam Malik tey bu ma nee la ah demal nga wutali ma Muwatta préciser lu ma la bu imam Malik rahmaallah yow boo demee bu yaxyaa ibnu yaxyaa al-Laysi ngay jënd moom nga may utal indil ma am na bu ibnu Wahb am na bu Muhammad ibnu Hasan al-Shaybani am na bu al-Qa'nabi am na bu yaxyaa bi ñoom muslim imam muslim di solo souvent moo et cetera am na am na am na am na yu bari am na bu ibnu qasim ah, am na bu alqaanabi am na bu bu bu bu xutaybat ibnu said et cetera am na bu aboubacar ibnu abi shayba am na yeneen raxmatullah alal jamii léegi yooyu noonu bu diggante bu yaxyaa ibnu yaxyaa al ak bu Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullahi alayhi ay xadis yu baree baree bare lu tolloog téeméeri xadis dox na seen digg maanaam seen différence de nombre de xadis rek mat na cent waaw. te ci même kii bi lañ ko jëlee. même téere bi la parce que imam Maalik rahimahullah d'année en année da daan soppi léeg-léeg yenn yi léeg-léeg mu yokk ci quelque léeg-léeg mu soppi ci yenn affaire voilà. li tax nag ñuy utiliser bu Yaxya ibn Yaxya al-Laythi rahimahullah mooy moom moo mujjee solo mu waxta ci imam Maalik. rahimahullah dégg nga léegi euh, donte moom day def ay erreur ci ni mu ci ni mu takkee affaire yi parfois am na quelque njuumte moo tax du moom mooy bi gën a dëgër ci moo tax euh, euh, moom moom la ñuy solowee mais pour pour setantal yenn baat yi pour dëgëral yenn riwaayaat yi dañuy dañuy utiliser yeneen yi yeneen mu waxtaan yi mais bii moom mooy bi nga xam ne moom lañ sukkandikoo pour chara muwatta maanaam ñi sara muwatta ñoom ibnu abdul bar ñoom ibnu al arabi ñoom al baaji ñoom az-zarqaani et cetera rahmatullah al jami ñoom muwatta boobu lañ jël comprendre d'accord léegi pour xanaa xanafi par exemple comme euh, waa ji dëkk Inde al kandahlawi rahmatullah par exemple moom bi muy sharh muwatta muwatta bu Muhammad ibn Hasan al-Shaybani lay jël et cetera voilà comme al kashful mughatta ki ko bindu voilà amma al-Kandahlawi bu Yahya ibn Yahya la ba kii la al-Kashf al-Muqatta mhm. ñoom ko ki bi non lañ ko def mhm. boobu Muhammad ibn Hasan al-Shaybani waaw maa ngi ciy ñëw maa ngi ciy ñëw inshallah ci lay ñew pour répondre sa question motax tax may may wax yi may wax parce que dama bëgg comprendre effectivement lan motax ñu utiliser déjà ñu utiliser mu dawana mu gëna nek référence que Muwatta d'accord voilà ci lay ñew expliquer contexte ñëw voilà ah. ci lool lay ñew nii voilà léegi waaw léegi moom muwatta yooyu comme dañoo bari ba pare par exemple ci muwatta bu ibnu bu bu bu bu bu kii bu yaxya am na yaxya al-laysi rahimahullah da nga ciy gis ay wax yoo xam ne imaamu malik rahimahullah daf koo wax ci fiqh li mu xalaat ci domaine tel wala tel daf ci wax parfois ay waxam moo tax nga ciy gis mu jékki-jékki wax day indi ay hadith bam mu mu jek dal ni qala Malik imam Malik neena rahimahullah nangam ak nangam comprendre hmm. voilà legui motax tamit ngay gis riwayat bobu ngay gis dañ nan hadathana yahya ibn yahya an Malik waaw ngay gis ko hadathana yahya ibn yahya an Malik Malik ak bind tere bi mais yahya ibn yahya lay si moko solo ci mom kon mu jere ci Malik et cetera rahmatullah euh kon mu wax en fait imam Malik rahimahullah ay hadith la ci indi et cetera ak yu mel non parfois mu joxe ci ay avion mais mu dawona li tax mu gëna moy mu euh, ku ñuy wax Asad ibnul Furat rahimahullah Mom mo demoon a Iraq parce que xanafi ak maanaam ñu dëkk iraq yu ne mooy ñoom xanafiye yi parce que fa la kii dëkkoon ñoom boo xoolee ay Basra ay Kufa euh, côté yooyu noonu mhm. ñooñu ñoo gënoon fort ci lépp loo xam ne dafa aju raisonnement ak rayu ci raisonnement mais lu aju ci wàllu xadis dëgg ñi ci gënoon foor mooy wax Hijaz ay Makka Madina et tout ce qui est parce que fofu la révélation bi wàccoon donc ñom ñu gëna bëri hadith yu mokal mokkal mais ni ñi dëkk Irak comme ñom hadith yi mokal bëri bëriwul par rapport ak ñé donc à un moment donné dañ doon obligé di utiliser seen raisonnement sen ay ay ittihad yu bëri di def ittihad bu lu bëri effort d'interprétation effort de kii di qiyaas et cetera donc ñom sen xel mo gënoon na ñaw ci côté boobu ñële nak ñoo ëppoon li ñu mokkal ci hadith. Ah. ce qui fait que motax imam Abu Hanifa rahimahullah nek imam borom xam-xamu fiq ñu ko tuddee imamul azam parce que mom fofu la dëkkoon ci tabi'i yu mag ci tabi'i la bokkon gis na Anas ibn Malik rahimahullah radiyallahu anhu donc ñom sufyan as-Sawri fofu la nekkon ñom ibrahim an nakhai kufa deug nga ñoom maanaam yenn gaa yu mak ñofa dekkon côté bobu

après ma dem laaj ji imam Malik rahimahullah bi mu demee fekk Madina fekk imam Malik génn aduna mu gis Abdullah ibn Wahb mel rahimahullah talibem bu mag bobu borom xoxom xam fiqh xadiis et cetera rahmatullah alayh bi mu demee Abdullah ibn Wahb rahimahullah ne ko say ko tontu mom da koy tontu khalatam man li la gis parce que Abdullah ibn Wahb bindu na ay téré yo xamné sama sama samayaatu ibn Wahb yu mu ci imam Malik nga téré yu rëy rëy ay 30 tom lañ ay yu bëree bëri wa yoy yo xamné ay wax la yu déggé ci imam Malik ak ñom ashab ñom ñepp bi def nañ lool rahmatullah alayhi légui bi mu bindé bi mu ñëwé ci ibnu ibnu Wahb rahmatullah doon ko woon wax li Malik xalaat ci question bi da koy wax ni ko man li la xalaat ndax hadith sangam lii laa gis parce que mooy <laughs> mooy doxalin bi hmm. waa ji nag ne ko man bugguma lii am na sax ñu ci wax wax yoo xam ne nee dañu ko sax waaw man maa ngi soxla euh, ndox xaw ma ndox mu sell nga may jox ay saw genre yooyu <laughs> hmm. <laughs> voilà wala saw mu ja fu ñu fu ñu euh, euh, nutati peggu dex gu sell ne fi may may dem ci peggu dex goo xam ne dañ faa saw xam nga ni hmm. loolu duma ko def genre wax yoo xam ne maanaam pour wax ne imam Malik du ma ko comparer ak yow. Hmm. ak loo voilà. léegi daal dama bëggoon nga wax ma li imam Malik mu bañ mu ne ko man nag dama lay wax li nga xam ne moom laa gis par rapport ak dalil yi ma yor dëgg la imam Malik mooy sëriñam mais nag li may wax dama ko wax par rapport ak dalil yi mu mu bàyyi noonu mu ne ko déedéet man école Malik laa bëggoon xam. mu dem maanaam idéewu ay idéew mu dem ci ibnu qasim rahimahullah ibnu qasim nettali ko ibnu qasim danaan ko waaw imam malik day rahimahullah question sàngam lu mu wax mu ne ko dégg naa imam malik tontu ci nàngam question sàngam mës naa ko laaj imam malik wala dégg naa ñu laaj ko ko wala dégg naa mu wax ci mu wax ci nàngam mu tontu su gisul lu imam malik wax rahimahullah moom mu indi tontom moom moom ibnu qasim rahimahullah comprendre waaw comprendre léegi asad ibnul furat dem ñëw fi Andalousie bi mu ñew Andalousie imam Sahnun ñëw jël ko ci mom recopier ko dem Égypte Misra fekkat fa Ibnul Qasim Abdurrahman Ibnul Qasim al-Awtaki rahimahullah mu dem fekk ko fofu parce que imam Malik talibim yu makki misru yu noy lañ. ay waaw c'est des Égyptiens. voilà ñom ashab Ibnu Wahb alqiba ibnu qasim boobu et cetera rahmatullah alayhim mu demee ci ibnu qasim rahmatullah ibnu qasim ne ko man mu daal di koy jàngaatal téere bi yépp ci kanam mu ne waaw mais nangam point sangam so nangam léegi soppi naa ci gis-gis nangam la wala soppi naa ci et cetera soppi wax yi mu am yu mu ci yokk ay question yu mu ci yokk am yu mu ci dindi et mm-hmm. après mu ne nag na Asad ibnul Furaat changé téere bi asatul furaat bañ mu ne yàlla bu yàlla deñ yàlla na yàlla dindi barke ci téere boobu yàlla def ba mu dawoon na pourtant ñaar la bu boobu la ak bii bu bu sax noonu mais bu sax noonu bi moo siiw moom bële yàlla dafa dindi barke bi siiwul loolu tamit day wane ni Ibnu Qasim seetle woon parce que <laughs> ak tamit ni déggee ndigalu sëriñ ci amee solo mm-hmm. léegi mu dawoon na lu tax ñu koy comparer ak Muwatta te Muwatta mooy bindu imam Malik rahimahullah mu dawoon imam Malik bindu ko mhm. mais gis-gisu imam Malik lañ ciy wax d'ailleurs après moo tax xas sax ñun rahimahullah ci dé ci fii ci dafa commencé wax ju nekk mu koy utal ay dalil mais parce que avant muy jeex dafa génn àdduna. Mhm. bi mu tàmbalee bi mu dawoon li tax mu ëpp doole nag moo tax Maliki kii da xam dañ naan. Euh, avis Malik yi liñ fi ñu koy jële mooy premièrement mooy waxu imam Malik bu nekk ci mu dawwana mu ëpp doole après waxu imam Malik bu nekk ci mu watta après waxu imam Malik bu nekk après waxu imam bu nekkul nii mu dawwana nii ci mu après ñu doog a jël waxu ibnu Qasim mooy deuxième ibnu waxu ibnu Qasim bu nekk ci mu dawwana après waxu ibnu qasim bu nekul ci mu dawwana d'accord après ah. ñu jël ñom ashab et donc vu que mu watta wa ñuko solo dafa bëri wa ah. euh, version

yéegul darajay siqa sa <laughs> saduq la parce que dafa am ay degré lañ tamit ñoom ñii solo. waaw voilà. mais teewul waxam day dëgër waaw. waaw bismillah donc bu ñu jógee foofu. Mhm. maintenant ñu ñëw ci mudawana. Mhm. mooy lien bi nga def mooy xaasim mooy lien bi. ibnu xaasim ibnu xaasim moom mooy lien bi. waaw ibnu xaasim. te parce que ibnu xaasim tamit solo na mu watta. waaw te mu watta bu ibnu xaasim. waaw moo ëpp doole. yeneen Muwatta comme Ali ibn al-Madini sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullah Ali ibn al-Madini rahimahullah mhm. mu Ibn al-Qasim mu mu dawoon yëpp bi ci gën a dëgër mooy Ibn al-Qasim solo ci imaam Malik rahimahullah waaw waaw donc on loolu moo tax mu dawoon na ëpp doole donc en fait affaire bi. Hmm. boo ko xoolee bu ñu bëggee résumer lu ñuy wax yëpp. ci wóolute la nekk. voilà. ci maanaam waa ji nekk siqa nit mooy mooy nit ku wóor voilà foofu la voilà te bu nekkee moom wax ji lu muy ak tamit le fait mu daw wana dafa jaar ci loxol ñeenti imam ci ngir bi parce que dafa jaar ci imaamu Malik wax imaamu Malik ibnul Qasim Hasan ibnul Furat ak Sahnun te ñoom ñeenti ñëpp ay imam lañ ci njiir bi même bu nekkee Hassan al ibn Furat. voilà après voilà mais wax ji ci moom la ko sax nun jëlee de toute façon. waaw mais version sax nun moom moom. après moom la ñu wéyal voilà parce que quelques rectificatifs rek la. moo tax comprendre nga kon. loolu déjà moo tax moo tax mu dawoon a gën a dëgër. mu dawoon na li tax mu gën a dëgër déjà d'abord mooy dafa jaar ci loxol ñeenti imam. Malik imam Malik. Uh-huh. ibn al Qasim ibn al Qasim. asal asal ibnu furaat saxnun ak saxnun imam saxnun waaw raxmatullah raxmatullah alayhi léegi xool beneen affaire bi tax mu dawwana gën a dëgër mu watta mooy mu dawwa mu dawwana ibnu qasim moo ko dicté lépp parfois nag sax ñun dina ci joxe ay avis effectivement ak asad ibnu furaat léeg-léeg ñu joxe seen ay avis effectivement dama la fàtte wax loolu mooy su ibnu qasim waxul kii et cetera Mm-hmm. léegi mais loolu lu raar la. waaw mais li lay li li li li tax mooy Ibnu Qasim bii. rahimahullah waaw Abdurahman Ibnu Qasim al-Awtaki bii rahimahullah mm-hmm. li tax waxam gën a dëgër nag waxu ñeneen ñi ba pare moo tax mu dawoon a ëpp doole yeneen wi ginnaaw le fait que ñeent ñi jaar ci. mu jaar ci loxol ñeent ñi maanaam mu mel ni lu ñu segg. tammi mm-hmm. ko bu baax. dafa am beneen particularité muy ibnu qasim rahimahullah bii dafa nekkoon koo xamante ne pendant vingt dernières années yi imam malik doon dund rahimahullah mhm. tàggalikoowul ak moom benn yoon amul benn jotaay bu imam malik toog di jàngale lul ibnu qasim ma nga fa loolu moom saa moom mooy ce qui fait kon waxam loolu moo tax waxu ibnu qasim gën a beneen wax bu mu mën a doon ci ngir bi kon kii soloon na dernière version bi. waaw waaye ki gën a yàgg ak moom. waxam mooy gën a dëgër. ok parce que kii dafa tukki di ñëw rek soloo ko delluwaat. mais moom ana bi moom sax. moom moo solo dernière version. waaw d'accord waaw. mais vu que kii pendant vingt ans dafa toog ak imam Malik. musul imam Malik du toog ci benn jotaay lu dul moom ma nga fa di pour wax ci diine pour jàngale lu dul moom Ibnu Qasim ma nga fa kon kooku vingt ans yu mujj yëpp li Ibnu Qasim ni imam malik rahmalahu de wolosi tout ça jëlum na même benn tif xet yu def au au au fur des années voilà au fur et à mesure ak yan la mujjé comme lan la imam malik mujjé japp lan la mujjé wax ya motax tax gis gis nga donc gis donc duñu dindi duñu dindi manam gëneel bi nekk ci oh, oh, version oh. voilà waye eh, waji mo gëna a dëgër la voilà té waji ci waji mo mo bind mu daw très bien ya. loola tax mu daw woon gëna gën mu watta ci ndir bi yow ko yaa ngi ñu waaw kon léegi kon kon imam la dox tuddeewul téere bi mu dawoon nag kon affaire yi yow léegi voilà waaw comprendre naa léegi voilà ba pare ba pare mu mu watta téere xadis la téere fiq la mais mu dawoon na téere fiq la spécialement donc day dugg ci yenn détails yoo xam ne mu dawoon mu watta dugg ci am na détails yu bari yoo xam ne mu watta traité wu ko mu dawoon moo ko traité donc loolu tax mu mu watta gën a dëgër mu dawoon a boobu mu dawoon voilà wax mu ngi doog a leer. voilà léegi bien fi nga wax. voilà da yoo xam ne. léegi voilà léegi après par exemple ci bu ñu demee ci kitaabul bay bu yor. waaw affaire yooyu par exemple Maliki rahmatullah alayhi dañ ci gën a dëgëral waxu ibnu Wahb que waxu ibnu Qasim parce que gis nañ ni ci li lu aju ci wàllu njaay njënd ibnu Wahb moo ko gënoon maîtriser te ñu ko jàngee ci imam Malik ibnu Qasim. effectivement ku nekk ak domaine nga gën te ibnu ibnu ibnu Wahb boobu rahimahullah moom ànd na ak imam Malik 30 ans. kii 20 ans la kii 30 ans non 20 ans yu te ibnu ibnu qasim avant muy dem fële fekkoon na mu jàng mu wappa ba pare d'accord avant di dem di dem non fekk imam malik fekk imam malik ci mujj fekk na mu jàng mu wappa ba pare mazhab Maliki, mais dafa bëggoon gën ko borom mazhab bi ci bopam mu dem allahu akbar toog ak moom pendant 20 ans yu yëpp tàqalikowul ak moom loolu tax gars yi bu ñu daan wax naan li tax imam Malik di li tax li tax waa mis ibnu Qasim solo euh, sadlu wàcce loxo mooy dañoo dóoroon imam Malik ibnu Qasim jóge Égypte ñëw xool ko gis gis mu wàcce loxo yi mu daal di dellu si xam nga loolu wax jooju waxi caaxaan la xam nga waxu caaxaan la mhm. yow kay nañu yàlla sàmm waaw dégg kon kon voilà maanaam li ma la bëgg a wax rek mooy ngir bu ne dafa am nu ñuy seggee wax même xalaf yi non lañ mel tam rahmatullah am na nu ñuy seggee waxu imam imam bi mo upp doola su ñom ñett lañ manam imam bi ak ak yaqub ibn ibrahim euh abu yusuf ak ki ci dess mohammed ibn hasan al-shaybani ñom ñett bu ñu amee benn avis lool moy nek avis mazhab bi niki non ak nit ñi koy séggé yoy xeyna du place bi ñu ko wara yaatale mais ñom et cetera ay ay ay ay façon la ñu bu ñuy seggee wax yi après nag wax yooyu ñoo ñu seen wax après nag tey par exemple alqaadi abu yusuf ak imam ak imam bu mag bi mooy imam al mooy ñoom bu ñu waxee moo ëpp doole bu wax muhammad ibn hasan al-shaybani moom kese après euh, imam bi en fait bi daal fu mu bokkee ci benn groupe waxam moo gën a dëgër après nag mu des ñaar ñi muhammad ibn hasan al ak imam ak ki ak euh, mooy ñaari àndandoo ak mohammed ibn Hasan al-Shaybani ak al-Qadi Abu Yusuf rahmatullah buñu waxe ñom ñaar mu wuti ak waxu imam bi ñom ñaar seen wax lañu jël pour la plupart du temps amna nak quelques rares exceptions mais pour la plupart du temps waxu ñaari àndandoo lañu jël mu upp doole waxu imam bi leg leg après waxu ñu après ñom ñi Zufar moy seen wax te Zufar ak amna ñu manam àndandoo. après nak buñu démé manam ñi ségg seen mazhab au fur du temps après seen ginnaw ak taxaw yi moo ñëw seggaat mazhab bi def ci liggéey bi. après chapitre 8 bi alhamdulilah. <laughs> voilà très important. méthodologie la lay jàngal. méthodologie. ak masque bi nan la démé seen biir. <laughs> ci ngay comprendre dëgg quatre grandes écoles yi nan lañ formé wo ak lan moy seen jëri ñoo fait. nan la masque bi nan lañ ñëwé ñëwee. nan la ñu voilà ak ban idée moy génn. ci idée bi ci lan lañ koy teg. li ñu expliqué en fait mu leer. voilà waaw.

Mm-hmm. ñu koy gën a dëgëral par exemple moo tax ci bu ne am lu ñuy wax al mutaqaddimuna am ñuy wax al mutaaxiruna mazhab yépp ko am bu dee par exemple xanafi euh, yi rahmatullah alam mutaqaddimuna yi ñu ngi jeexe ci imam at-tahawi rahimahullah mooy les années quatre cent ñooñu dund ba jamono jooju ñooñu la par exemple bu dee ci mazhab même mazhab Shafi'i yi noonu la mel am mazhab Maliki rahmatullah alayhi imam ci ibn Abi Zayd al-Qayrawani la génn la jeexe ay 396 la su ma juumul ci la génn àdduna rahimahullah foofu la jeexe ku juddu après moom ci ñu mujj ñi nga bokk donc mais wax kenn du ko jëlee ci ñu mujj ñi ci ñu njëkk ñi lañ koy jëlee mm-hmm. ñu seen wax moo ëpp doole après nag ñoo ñu seen wax ñu mujj ñi ci waxu ñoo ñu rek lañ mën a référé woo mënuñu référé woo ci leneen maanaam mënuñu indi seen ay wax yu bees <laughs> voilà niki noonu ci mazhab yëpp noonu lañ leen nag dafa am mutaqaddimuuna am mutaaxiruuna ji après ci biir ñooñu nag voilà ñuy segg seeni wax et cetera comme tey boo ñëwee ci mazhab moo tax par exemple mazhab xanafi euh, rahmatullah bi ñu paree bi bi période boobu yëpp pare ba ñuy seggaat affaire comme par exemple ku mel al qadduuri rahmatullah dafa indi mu ne muxtasarul qadduuri nga xam ne dafa jël muxtasar li nga xam ne mooy mazhab moo tax bu ñu waxee téere bi ci mazhab xanafi muxtasarul qadduuri lañ ci jublu rahmatullah d'accord parce que moom dafa seggaat mazhab après nag am na al bidaya après an nihaya tamit ñëw après mu euh, ñoom ibnul hammam ñoom ñëpp ñu daal di ñëw euh, gën ko yaatal fekk avant loolu un avant ñoom sarax si ñëw nañ euh, mu bind al mabsuut nga xamante ne bi mu koy bind ci biir teen la nekkoon subhaanallah dafa daanoon ci biir teen bi taalibe yi topp nekk ci peggu teen bi mu di leen dicté téere bi ba téere bi jeex al mabsuut téere bu ngand la après gars yi génne ko. waaw ci la génnee mazhab mazhab xanaf yi segg ko wax ku leeral ko indi dalil yi fan la tegu ci alquran xadiis yi et cetera. ak comparé ko waaw. mais taalibe yi bàyyi wuñ néewuñu de néewuñu comme sëriñ bi mu ngi ci biir teen bi te mënaguñ koo génne kon nañ bàyyi jàng pour le moment déedéet sëriñ bi tamit néewul toppatoo leen noo leen ma génnee ba pare déedéet d'accord di ngeen toppatoo noo leen ma génne mais entre temps nañu jàng. <laughs> daf may tax ma gën a comprendre intérêt bi nekk li tax ñu ñuy war a jël cours voilà voilà entre temps nañu jàng ah oui muy bind quelle soit la situation nañuy jàng voilà ñu bind gars yi bind muy dicté ba mu ba mu bind téere bi ci ci ci noonu la ko bind ci mokkalam te téere bi boo ko gisee laa ilaha illallah da nga yéemu ci yàlla ci ni muy tegalee masala yi ni muy tegalee affaire yi dalil yi ni mu koy jëlee ak parfois wuute ñoom bu dee param yeneen borom xam dañoo wuutee ñoom ni muy waxee seen wax ak ni mu leen di tontoo pour dëgëral seen masab yooyu nag am na ci ngir bu ne ñuy doxalee noonu yëpp pour dëgëral wax ni suñu masab lii la et cetera maanaam teftale wax yi c'est très kii non daf c'est c'est non non fiq bi boo xoolee historique bi moo tax loolu lu mat xam la. tax nga ba bëgg fiq daal. waaw nan la ñuy def ba nan lañ ko defee ba mu ba mu yegg si fii mu yegg si tey. par exemple boo jëlee masab Maliki rahmatullah alayhim ñoom période yooyu yooyu boo gisee par exemple yi période bi ma la njëkk wax ni nga xam ne ñii ñoo doon ànd ak imam Malik liñ bind ci moom toxal ko jël ay waxam et cetera mais téerewul xoolal même ñoom ay ashab al otabi et cetera ñoom ñëpp comme al otabi ya téere yu am solo lañ après ci seen ginnaaw ñoom Abdul Malik ibn Habib ñoom al ah ñoo ñëw ñu dëgëral ginnaaw risaala ibn Abi Zayd al-Qarawaan parce que ibn Abi Zayd al-Qarawaan rahmatullah comme moom laa wax ne la moom moo bokk moom mooy ñu njëkk ñi

ñoom ñi génération boobu ñëw après ñooñ nag seen génération ah euh, ci la ci ci seen ginnaaw nag ci la euh, ñoom Ibnul Xaajib mm-hmm. ñooñu ñëw ci la bindee kii euh, téere bi waaye Muxtasar Ibnul Xaajib et cetera après nag moom la imam Xalil jël gën ko seggaat jël mu daw wan a résumé ko indi wuute yi boroom xam-xam yi wuute ci mësa bi teg après nag fekk nag ñoom avant ñoom avant ñoom kii amna yeneen ponkal yu fi ñëwoon juste avant ñoom xad ki xalil rahimahullah juste avant période am am yeneen ponkal yu fi ñëwoon comme ñoom Ibn Rushd ponkal bi Ibn Rushd bu mag. voilà mu koy dégg voilà parce que ñaar lañ Ibn Rushd al jadd ak al xafid Ibn Rushd al jadd moom mooy référence ci ngir bi ibnu Rushd bu tuuti bi moo bind Bidaayatul Mujtahid. voilà moom mooy sët bi voilà. ñoom ñaar ñëpp Ahmad ibn Rushd lañ tudd moo tax daan Ahmad ibn Rushd ibn Ahmad ibn Rushd moo tax niñ leen di xàmmee mooy dañ naan kee mooy maam ji kii mooy sët bi ñoom ñaar ñëpp ay philosophe lañ kenn ki mooy Averroès moom la wax Averroès ay philosophe lañ ay qaadi lañ ay boroomi xam-xam ñoom ñoom ñaar ñëpp ay ay ay ay ngi ci ay fuqaha lañ ay ay walla ñoom ñoom ñaar ñëpp ay médecin lañ tamit waaw ñoo ñaar ñëpp noonu lañ mel rahmatullah alayhim léegi mais ibnu rushd boobu mooy bind al maqaamaat moo bind al bayaan at tahsil wal bayaan ci yooyu nga xam ne téere la ñuy yu dajale mazhab bi yu dajale mazhab bi voilà ay ñoom lax mi laxam mi ñoom ñëwoon nañ mooy alfaakax yi am na ñoom ibnu yunus ak et cetera almaziri almaziri moo ñëw avant qaadi iyad voilà almasiri mo ñëwoon al avant qadiyat après ak ñom qurtubi jamono yooyu lañ ñëwoon après nak motax ibnu euh, ki dafa dajale seen wax ñoom ñep mais centre affaire bi ci mu dawona wana comme mu dawona moy référence mu centre lepp ci mu dawona wana khalil euh, loolu la def rahimahullah ba pare di indi wuti yeeg yoy motax nak nag khalil mom moy tirer référence ngir bi léegi nak charge yiñ ko chara nak boroxo wi ñew ci ginnaw dañ ko chara ak sara yi ñu sara Muwatta yooyu ñooy référence ngir. Mudawwana ak Xalil. voilà non maanaam Xalil Muxtasar Xalil. Muxtasar moom mooy moom mooy mujj référence mu mujj nekk référence. voilà mais mun nañu wax Mudawwana ak Xalil. waaw Mudawwana en fait mu Xalil résumé wu Mudawwana la yoo xam ne daf cee yokk nan la maanaam saraakat yi. ñi saraa mu daw wana mm-hmm. mooy ponkal yi ma la wax waaw les commentateurs nan yan mooy seen avis et cetera moom la indiwaat rek wuté ñu wuté gis gis gis yi ñu bokk et cetera ñom leen doon def ko mu nekk. à travers les générations chacun a fait un travail. voilà chacun a fait un travail ce qui fait que xalil bu mu ñëwee moom. voilà rahmatullah alayhi dafa xol ñeneen ñëpp fa lañ tollu voilà mu xol fi voilà fek ñoo voilà fofu après nak liggéeyam bu mo do def mom mom day day recentrer affaire yi. voilà voilà. machallah voilà fek nak ak figure nga fi nga. mais fek mom élément de base de travail am mooy Muxtasar Ibn al Hajib. voilà rahimallah ci Moxtasar Ibn Xaaji moom mu ngi ko def ci ci mu dawan voilà moom tamit presque moom la ba pare tamit dafa gën a concentré aussi ci usul yi et cetera mais Xalil daf koo chara bu tuddee ko ak tawdix chara boobu mu chara Moxtasar Ibn Xaaji après ginnaaw gi ci la indee. Moxtasar Xalil voilà ci la bindee Moxtasar bi nag gën ko seggaat gën a seggaat Moxtasar Ibn Xaaji plus di gën a référé wu ci affaire yi ba pare euh, Khalil dañ koy trouver en français wala arabe si dañ koy trouver en français mais traduction c'est très dur à traduire parce que comme li ma la ko waxee démb maanaam euh, Maliki rahmatullah seen façon bi ñuy doxale moo moo moo difficile donc pour nga comprendre ko c'est un peu difficile euh, en français même en français waaw uh-huh. je crois que ni mu nekk noonu arabe bi ak kii moo gën uh-huh. voilà ak wala kon incha allah bu ñu paree nii moo dugg ci ci sa téere sa téere bi duratul xarit. incha allah peut être que xale bi la ñu jël après. waaw soo neexee incha allah. waaw man nag téere fiq bi tarixa bi nag ñoo ma gën a ñoo ma gën a ñoo ma gën a neex. waaye nag mën nañu def parenthèse xale yi incha allah. waaw incha allah maa ngi gën a kii. waaw mais moom Muxtasar mais voilà. par exemple xoolal Ibn Abi Zayd al-Qarawani moom bi mu bindee an-Nawaadir wa Ziyaadaat téere la boo xam ne ñu ngi koy doog a ñu ngi koy doog a édité. sinon maxtuutiyaat yi ñoo amoon quoi mooy dañ ko daan bind nii mais par exemple gis naa ko trent tomes la xam nga lan la ci bind li nekkul ci mu dawwana nekkul ci mu watta ci ay waxu imaamu Malik loolu la ci bind loolu la ci dajale kese lépp lu waxu imaamu Malik bu nekkul ci mu dawwana nekkul ci mu watta mu dajale ko mu tudd an nawaadir wa ziyaadat mu ne ah. trente tomes toog moom takku na kat. waaw waaw même risaala bi nii moom bi mu koy bind 17 ans la amoon te xoolal subhaanallah 4000 masala la ci traité wax ko ay wax yu gàtt yu woyof yu leer yoo xamante ne benn bu ci nekk day dellu ci benn xadis. <laughs> donc 4000 xadis. voilà. 4000 4000 masala 4000 xadis. voilà yu leer. yu wóor yu leer. amul benn problème daa yëful benn yoon wax ju dëgër waaw nekkul xawlun shaas tamit <laughs> ayo kon ñu continuer parce que sinon ñun kay moom voilà tay moom xam naa ne moom pratiquement on a fait l'historique de la waaw mais c'est c'est c'est toujours bien alhamdulilah dégg nga kon euh, <laughs> waaw monsieur jeexal paragraphe bi waaw mu ne xattaa mbete saara mu mujj kulla kitaabin gépp téere naxwa 20 mu nekk lu jege naxoo lu jege ishriina ñaar fukki mujj la dan ci ay tom mhm. wala laa yaji du dikkee kalaamu mujtahidi kàddu ki nga xam ne mooy mujtahidi imam ba isa jumia bu ñu dajee mujj la dan mu nekk mujj la dan ab benn tom waaxidan benn kese min bu tukkee ci moom maanaam léeg-léeg nga gis nit koo xam ne dana day saraax téere xadis kii day téere boo xam ne benn euh, walla boog day wax ci mazhab sàngam walla muy wax ci imaam bi ci boppam li muy wax mu bind lu tollook vingt tomes yoo xamante ne boo dajalee waxu imaam bi ci boppam du mat benn tome maanaam pour waxal na la bu ñu gaaw a askanale imaam bi du critique gu nit ñi def loolu mais day wax ne pour bu kenn di askanale imaam bi wax jooju nañ ne rek mazhab bi nangam wala yooyu mhm. voilà mhm. summa qaala topp mu ne wa min ha bokk na ci yaani maanaam mi ngi ci name bi bokk na ci teggi ni gis nga nag aadab bi gis nga ni mu bindee aadab fii oh. voilà oh. am amrun mbir moo xam ne ak falafoo sàggane na ko al fuqahaa u fuqahaa xattaa mbéte taala mu daal di yàgg alayhim ci ñoom zamanu jamono tafaqquhihim bi ñuy amee xam-xamu fiq wastaxraqate mu maanaam mu mu lab amaarahum mu labal amaarahum seenu dund waxu mm-hmm. wate mooy lan manam dafa am lo xamantene teggin la pour sàkku xam-xam mais fuqaha yu bare bare dañ ko sagane sagane de tel sorte que da nañu dund seen giir dund ñuy sàkku xam-xam te li wa seen xam-xam du ko taxabar wo wote moy istighalum seen istixaalum seenu bi fahmi ci deg comprendre taraki bi ni mu toftolo ni mu tegalowe kalamu kàddu baadum len ci yéen wa mantuuqihi ak wax ju leer ja wa mafhumi ak dañuy degge ca ganna wax da xatta mbéta tajaawasu ñu ñu ñu jéggi fii ani shariati wala shariati almasumata bay aji ñoŋ ba mhm. Mhm. wa min fahmi aka dégg asraariha mbóotam yi almutaharata ya aji làpp mhm. walaw taraku bu fekkonte ne bàyyi nañ jamia mboolem kalaami kàddu xayra kudul rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wala walam ya'lamu te xam ah? te xamuñu bi shay'in ci dara min ci mom fala kharaja amul khat khat alayhim waral len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah manam loolu tamit benen benen problème la bu gaay buy dal gaay moy dañuy jàpp waxu dañuy jël par exemple ben téré ben fiqh wala borom xam fiqh yoy nek ci di top boy lim wax li boo waxe li kon li la ci djublu bo waxe li kon manam bo moy tout manam li def nako ci djegge def na li leer na li leerut nekk ca di topp di di di xootal ci mbir yooyu te pourtant au lieu ñu jàngee noonu ñu préoccupé noonu ci téere yi nga xam ne téere fiq téere fiq yi lañ buñ demoon ci xadiis yi préoccupé wu ci loolu moo leen doon ëppal njariñ parce que bu ñu jàngee waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp doole day bu ñu xamul woon waxu keneen ku dul waxu yenent bi rek sallallahu alayhi wa sallam jéem a concentré wu ci xadiis yi ci sharx yi leer mu affaire bi leer sen bop maanaa yi masala yi et cetera loolu moo gën ci ñoo parce que waxu kenen ku ñu réere garawul way waxu yeneen bi mom hmm. sallalahu alayhi wasallam dañ ko war a xam loolu lay wax nak il perd beaucoup de temps voilà nekk ci ci voilà ci yenn téere yi alors que voilà se concentre sur l'essentiel am na pire sax man gis na pire gis na ñu bëri ño xamanteni ne dañuy yittewoo ci man par exemple way shuara maanaam waykat yi poète araab yi jaahil yi et cetera nga xam ne ni ñuy ni ñuy waxee arab bu rafet ci la ñuy nekk yàgg caag seen giiru dund ñu labal ko ca masala fiq yu xóot ak nan maanaam njàng mu leer mi duñ duñ duñ ko yittewoo. allahu akbar aqida boo duggee ci aqida point yi. Mhm. nga gis ñu sàggane ñu négligé yu bari wala yu baree bari def leen ci rëcc ñu réere ko. te li ñuy parce que dañuy concentré wu ci ay yo xamante ay adab hein waxuma ne baaxul mais dafa am xam-xam yo xam en fait de nga ci jël la nga ca soxla comme xorom ci togg togg tay bu meune dama togg sama ceebu jël xorom si du lool moy objectif bi na ceeb bi bari te jëm bi douf baax na am ñom ñaam bi et cetera ñoom suppu kaay do nan la tudd astafurlah waa ji suppu vert ay jaay yi ci des. waaw ñoom ba tey see. waaw kay loolu moo gën. carotte voilà. gaa yooyu noonu. waaw mais xorom si da koy safal. xam nga da koy safal. doy tax mu gën a neex. mais nag jël ci rek li nga soxla boo ci jëlee lu gën a tuuti li nga soxla ceeb bi dana desee neex. Voilà, ci jëlee lu nga soxla bi dootul neexat. kenn du ko lekk voilà <laughs> kenn du ko lekk <laughs> xam-xam yoy non lañ mel nax wu ci la bok adab ci la bok nax nu moy nax wu grammaire grammaire. ak yu ay ci c'est important quand même. waaw mais mais mais da ci donc da nga rek vous ne mën comprendre ni wax yi ah, donc voilà l'essentiel. voilà mais am di ko yi jaru parce que du l'essentiel waaw ah. niki noonu yeneen kii ci la bokk mooy euh, ay balaaxa ak yu demee noonu yu yëpp ci la bokk ay shi'r jàng na poésie ak yaa ci aju yooyu yëpp ci la bokk da nga jël rek xataa usul usul sax jege na ko usul xaw tuuti mu bokk ci loolu mhm. xaw tuuti mu bokk ci yooyu noonu moo tax tamit usul il nga xam rek ni ngay comme li Ash-Shatibi wax rahimahullah bépp àtte bépp ci muwaafaqaat bi mu koy tàmbali dafa ay introduction mu ne bépp masala usuliya boo xamante ne ci ronam masala fiqiya dugg ca loolu ak foola ak caaxaan di toppatoo loolu di di dem rek ci loo xamante ne après jëf nekkul ci ginnaaw kooku foola caaxaan la et cetera voilà donc da nga ci jël li doy gaa yu bëri nag loolu lañ xàmmewul di tok di jang ay téré yo xam téré yi adab rek lay manam ay way rek lay jangale nan lañuy wayé nan lañuy nan la moy yi mo difficile yi yooyu rek lay jangale au lieu nga go topato wax alcorane bi hadith bi fiqh bi et cetera yooyu ñu upp solo xam-xam yi ëpp solo tawhid la et cetera tawhid d'abord après tawhid alcorane après alcorane manam alcorane ak xam-xam yi ko wër la wax hadith mm-hmm. ak fiqh après usul fiqh yi ñooy xam-xam yi upp solo lu ñëw après la. voilà lu ñëw rek c'est pour compléter yi la yu ñëw dafa wara compléter yi ay tasawuf par exemple tasawuf xam-xam la bo xamantene dafa nek ci biir alcorane ak hadith yi donc mom mom ci jëmi bopam mook fiqh ñoy and tasawuf ak fiqh ñoy and voilà do do jël ben privilégié ko ci becc dess doontul kharida du lolu noonu.

waaw façon boo bëggee yéeg foog nga xam base yi. foog nga xam base yi yi foog mu dëgër. bu dëgërul doo mu def escalier pour yéeg ah. c'est pas possible da waaw moom étage kenn du ko tabax ci ci ci ci ci fondement glace. Ah, te bu naaj bi génnee rek. piliers yi mooy fekk bi en fait. voilà ah. c'est loolu moom leer na moom. voilà lu am solo la daal. Uh-huh. moo tax mu ne wa jamia mboolem aqwaal waxi al ulama borom xam-xam yi laa tax lu mënuñu génn an salaasatin wólif ñetti ah, an salaasati ahwaal wólif ñetti xaal imma ndaal an tuwaafiqa mu dëppoog sarixa sunnati lu leer naa ci sunnati alwaaridati lay adi rot maanaam ñetti possibilité moo am waxu boroom xam-xam bu mu mën a doon boo ko tegee munul ñàkk mu nekk ñett benn ci ñett yi bu njëkk bi mooy mu dëppoo ak sunna bu leer nañ waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo la jëfam bu leer nañ ñu rañé ku mu leer nañ waaw nga ne ah diiw de lii mu wax mom wax dëgg yalla dëgg la ndax hadith sangam mo koy tekkalé mhm. ci anam gu leer kon nak bu boba fa sunnatu sunna al musnatu moy la top kon liñu top topp dëgg-dëgg ci mbir mi du wax waaji du waaji sunna bi muy tekkalé la top wal mutahid ah mhm. ki nga xam ne mooy mujtahid nag kal xaaki kem aji la xaa moom c'est si dafay rapporter xadis bi kese dégg nga bi leeral ko que nga ne wal mujtahid mujtahid bi kem aji nettali di laxaa ñeel sunna bi tey tey buñ ne tey tey boo ñëwee laaj benn borom xam-xam nga ni ko wala mujtahid imam wala ku mën a doon nga ni ko ndax julli ci ponk lislaam yi la bokk mu ne la waaw julli ci ponk lislaam yi la bokk kenn du askanal maanaam le fait que waa wax ko wala mu ñëw di ko nettali dafa nettali rek loo xam ne xadis la boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi moo ne woon islam dañ ko tabax ci juróomi ponk bu neel islam ala xams mm-hmm. boole na ci iqaamatu salaat taxawul julli iqaamatu salaat taxawul julli comprendre nga waaw comprendre kon nag dëgg-dëgg sunna bi dëgg-dëgg mooy li ñu topp kon ki nga xam ne mooy borom xooxam moom daa nettali rek effectivement comme dañ gis nga waaw waa kay wa amma wa imma la ndaal maanaam voilà ci suuf la waroon nekk voilà voilà antu xaalifa ci jooju moom borom ko xam mu wuuteeg ci sunna kooku moom dañ koy bàyyi lu wuuteeg sunna dañ koy bàyyi ak ku mu mën a <laughs> nag bi sunnati ci sunna possibilité bu allah anti laa tazharu mu bañ a feeñ muwaafaqatuha dëppoom wal dëppoom ak sunna wax jooju wala muxaalafatuha du caageen ak wuuteem ak sunna boroom xam-xam bi wax na li mu wax amul lu feeñ ci zahir maanaam le sens apparent amul luy wane ne dëppoo na ak sunna amul luy wane ne wuute na ak sunna d'accord mune fa ahsan li gëna rafet ci axwaaloxaa ci ay xalam mhm. al waqfu moy ñu taxaw ba keroog ngay xam ba xam wax ji dëppoon ak sunna wala di dëppoowul donc bi moy deuxième bi ha bi moy troisième bi bi moy troisième bi wa kon bu njëkk bi moy wax ji dëppoon ak sunna dëppoon ak sunna ñaaral bi moy waaw waaw ñaaral bi moy bo pare bu boba muttahid bi manam borom xam-xam bi du waxam da netali kese dafa netali kesse wa kay wa deuxième bi mooy dëppoowul ak sunna dëppoowul ak sunna kon dañuy bàyyi waxam topp sunna topp sunna waaw troisième bi mooy euh, waxam gisuñu ko ci sunna mais ah waaw mais tamit gisuñu euh, ko gisuñu lu ko weddi tamit sunna waaw luy wane ne bokkul ak sunna ci troisième cas bi moom mu ne li gën a rafet liñ mën a def mooy dañuy xaar mooy no mooy mooy mooy taxaw bañ a bañ a appliquer dara appliquer taxaw rek di déglu di xaar ba mu leer ne dëppoon ak sunna wala déet ñu xool lu ñuy doog a def mais mais bu nekk Moustapha dafa nekk ci benn point fondamental boo xam ne ni mënuñu xaar <laughs> waaw loolu la wax nii xam nga looloo tax am mais daf la bëgg wax ne la voilà looloo tax mu am mais daf la bëgg wax ne la li gën a rafet ci li ñu mën a def ci situation boobu mooy nga taxaw xaar. ma joxe benn misaal. waaw bu nekkee ci euh, héritage la. Hmm. héritage. Hmm. nit ku génn àdduna. Mm. ñu ñu ñu ñu war a kii ay biens ah. mm. ñu am ci benn benn benn kii léegi lan la ñuy xaar Moustapha waa ji génn àdduna il faut ñu. waaw mais mën nañoo xaar ba mbir mi leer ne ni ñu koy defee dëppoo nag li yàlla bëgg waaw wala déet loolu moom mën nañu ko xaar. Hmm? léegi. kon mu ne fa fi'luha jufiku bu boba wa tarkuha ak bayiko ko sawa on ñoyam kep hmm ah waaw parce que boo ko moy mooy nga waxu borom ko xom bi mais leeru la ni sunna nga top parce que yalla mo sunna rek la wax ne nañ ko top boo ko itam li nga baye dara ba comme comme xamoo ba xam bàyyi nga sunnaam déet mhm. bàyyi nga daal di waa ji wax borom xam moom li wax ba nga ko mais sunna moom dara da ba woo sunna kon li nga def ayut donc en fait ëpp solo ci mbir mi mooy nga bañ bàyyi sunna waaw kay moom looloo garaw déglu nag mu ne illaa ndere mooy excepté settee ci wax ji de mooy excepté ci wax ji an takkoona an ci mu nekk maa ilatin di aji jeng ilal ixtiyaati jëm ci sàmm fi diini ci diine mooy di def lu gën a wóor su dee waxu borom xam boobu dafay jeng di jëme ci loo xam ne day leeral ne lii moo gën a wóor mm-hmm. alal ji dagan na wala daganul lii dagan naa lekk wala daganut a lekk ndax jigéen ji war naa mën a sëy ak moom wala déet waxu boroom xam-xam bi ñëw amul dara lu ma leer ne li mu wax dëppoon ak sunna amul dara luy wane ne dëppoon ak sunna amul dara luy wane ne dëppoowul ak sunna mhm. waaye nag mu ne moom mu wax wax joo xam ne dalay wan ne day ngi jëm ci maandu ci def lu gën a góor ci gën a sàmm bañ a dugg ci lu bon bu boobaa nag appliquer ko moo gën nga mhm. bàyyi ko appliquer waxu boroom xam-xam bi comprendre mhm. loolu moo tax ngay gis fuqaha yi souvent rahmatullah alayhi ñuy wax loolu dañ naan nangam de masala bi nangama ci gën a dëgër waaye nangam moo gën a sàmm waaw waaye dañ koy wax dañ koy dégg dañ koy dégg souvent nga koy wax waaw nàngam moo gën a sàmm hmm. maanaam nangam moo gën a wóor maanaam def ko daal hmm. moo gën a tuuti ay risque hmm. ci euh, mat mi waaw bu imam an-Nawawi 40 xadis yi est-ce que amul xadis buy wax ci loolu arbaay waaw waaw waaw am na ko mooy al xalaalu bayyinun wa xaraam bayyinun wa baynahuma mutashabihaat laa ya'lamu maa kathirun min an-naas mooy bu Nu'maan ibn Bashir bi. voilà c'est ça mooy entre deux choses. voilà defal fais la chose boo xam ne ni moo gën a wóor. voilà loolu xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw d'accord donc moom la ñu. am na beneen da' moo ay yow bi ngay wax mooy da' maa yuribuka ilaa maa laa yuribuka effectivement boobu tam ci xadiis yi ci xadiis yi ci arba'iin la yow boobu ngay wax. waaw waaw boobu Xasan ibn Ali radiyallahu anhu wax nga dëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko xadis mi ngi sunan moom Tirmidhi rahimahullah mu ne ko bàyyi loo xamante ne sa da nga ci nga def li nga xam ne amul benn sikki sàkka waaw kay mu ne kon nag boo waafal amalu jëfe bi haa ci wa wax jooju arjax moo gën a not mm-hmm. walla lam do walaw donte lam tu sa reex mm-hmm. leeralut ak shariatu sharia bi zalika ci jooju la wax mm-hmm. waxat dëgg-dëgg kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yaqulu di wax naan maa taraktu bàyyiwuma shay'an dara yuqarribukum bu leen di jegeñe ilallaahi jëm ci yàlla taala aji kaw ji lu dul waxa dëgg-dëgg amartukum digal naa bii ci moom laa shay wala shay'an noonu amul dara yub'idukum bu leen di sorele anillaahi wëllif bur yàlla taala aji kaw ji illaa lu dul waxa dëgg-dëgg nahaytukum tere naa an tere naa leen anhu wëllif loolu amul dara lu leen di jegeñe yàlla lu dul wax naa leen ko amul dara lu leen di sorel yàlla lu dul tere naa leen ko kon nak fa man kep ko xamne ne zaama neena na ngaay an na lu wér bo wor moy rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam taraka dafa baye at tasrixa ca leeral bi shay inti dar bo xamne amara digal na allah bur yàlla bi ci mom awwala bok na xaatira na anhu walif lif loolu faqat deug degg maraka rocce ku no génn no mina diini ci dini ci ku jàpp ne yenent sallallahu alayhi wa sallam amna lu yàlla beug nit ñi diko def wala lu mu leen di tere pour ñu war koo bàyyi loo xam ne moom leeralu ko yow da ngaa ci diine ji loolu mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doxalul mission ba mat te wax nga ne ni que yeneen sallallahu alayhi wasallam toog taxaw ci minbar bi ne. voilà seede ok nañ seede ah waaw xadis waaw yéen seede leen ok allahumma shahid seedeel leen yàlla seedeel nekk man sama ne waaw ah, naa mun muna wa fi saxiix bo dame ci saxiix bi anna li wér wor moy rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qala wa hna li hudhayfa hudhayfa ibn al yamani radiyallahu yàlla gër wala bu yàlla alaji kaw ji anhu moom mu ne li wér wor moy an nubuwata nubuwa war risalat ak risaala nubuwa moy le fait que nit ki ñu solo ko mu meuna nek ab yenen prophétie mu am message war risalat ak risala moy le fait que mu nek ab yenen bu ñu yoni xat dëgg dëgg inqataata ñoom ñaar ñëpp dog nañ falaa nabiya amul yenent ba di sama ginnaaw wala rasulun du caageen ku ñu amul wala solo ba di ginnaaw wala rasulun du ku ñu yónni mhm. wax ja leer na waaw na de yow nan nga bëgg a wëlbati nga naan gaa yi dégguñu xadis bi eh, caaxaan kat buñu dégg ci bu <laughs> taxaw naan gaa yi comprendre ruñ li yenent bi wax wala wala li wax ji dafa wuuteeg xaw ma la nag la pour wax ni ñom am nañ yenent ginnaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaw ko ko xam nga genn ci diine ci subhanallah ah det non dafa dank lolu aka bari ñaat nga xam ñuy wax lool subhanallah senegal kay moom wa yal nañ yalla sam dégg nga mu ne kon fan xataat dog na a ziyaadat yokkuteg takaalifu takaaliif togguk al ilahiyati kay ko di buur ah. bi mawti ci génn àdduna ak ar ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam te mu sax ak shariatu sharia loolu la sharia sax na rek képp ku fi indi lu bees wax ne lii diini la te loolu da saxul ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nga lu garaaw indi nga lu rëy wata bayyana moo tax leer na nañ al fardu farata wal ak li nga xam ne mooy li war wa xayruhuma ak yeneen yi dul ñoom waqat dëgg-dëgg kaana nekkoon na moom yeneen ci yàlla bi salla yàlla na julli allah buri àllah taala aji koy ci moom wa alihi ak ñoñom wasallama te musal leen yatabarra u doon deñ min martabati taxliili ci martabay di daganalal wa taxrimi ak di xaraamalal illaa ndere bi am riñ ci ndigal min allah bu tukkee ci buur yàlla azza wa jalla tedd na wa jalla te màgg na teraanga ak màggaay boobu xelu mindi fi mm-hmm. yaqulu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam da daan tere da daan deñal ne man man du man maay daganal lu may xaramal yàllaa ko lu dul xanaa yàlla moo def ko ma di leen ko yëgal rek lépp ci yàlla lu jóge alxalaalu mu yeneen bi sallallahu alayhi wa daan wax naan alxalaalu li dagan maa mooy li nga xam ne axal la daganal na ko allahu buur yàlla wal xaraam la xaraam maa mooy li nga xam ne xarama na ko allahu buur yàlla wa baada te ginnaaw nuzuli wàcc qawli buur yàlla waxam di taalam aji kawe ji bi nga xamantene mom la wax nan su ci sootu nisa ay 80 vingt mu ne man kep ko xamne ne tay top na ar rasul ndaw yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam faqat deug deug ata top na allah bur yalla ku top yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam top na yalla wa kay mo ngof kullu zalika li lepp nak te xolal pourtant andak ne yàlla na li mom mu ne li dagan dal moy li yalla daganal li haram moy li yalla haram manam mom ci demi bopam askan na lawul boppam ne day daganal mbaa mu xaramal lan ngay xalaat ci keneen ku dul moom eh man je crois baaxul <laughs> yoolu lu ci waaw lu ci sa yoon kullu zalika lii lépp adamu teggin la boo xam ne min hubu tukkee ci moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ànd ak rabbihi boromam azza wa jalla màgg na tedd na mhm. màggaay ak teranga gópp xelu mbindee fi wa kazalika niki noonu banaa nii la ñuy teet nii la yare moom maahu ànd ak moom nii lañu war a yaroo ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam laa du ñu yokk alaama ci lépp loo xamante ne xaddahu dëxale na ko lanaa leen ñeel shay an ci dara waaxid benn mbir bu mu mën a doon hmm. faf xam faf xam la amul xaaf du xaaf hmm. faal faf xam déggal lii hmm. comprendre ko wo wasseeta nga yaatal nak al ummati ci xeet wi kama kem ni nga xamne wasa non la yaatalee alayhim ci ñom rasulullah ndawal yàlla li salla yàlla na julli allah bur yàlla taala aji kaw ji alayhi mom wa ali ak ñoo ñooñom sallam te musallim wa taxit te nga fas ci sa xol ne an li wér bur ma insaanu doomu aadama nit law taqayyada bu teunku won ma al warid andak li nga xamantene moy li rot sarihan di lu leer fi shariati ci sharia bi wa tarakati mu bàyyi al amala ci jëfe bi jamee ma ci mboolem li nga xam ne wala doxoo moom la jural moom la génnee ci ay wax al ulama te wax boroom xam-xam yi mhm. fala xaraja amul benn xat-xat alayhi bu ko bu dal ci kawam wala law ma du caageen ak ŋaaññi kenn du ko critiquer mhm. nit bu doon day appliquer rek li leer naa ngi ci dukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kese kese kese bàyyi yeneen wax yépp mhm. amul dara lañ koy mën a critiquer waaye pourvu que mu mën ko comprendre du wax borom xam-xam fofu la important mais liñu waxal wa kay mais ñom liñu waxal seen bop rek gis seen gis-gisu bop loolu mom nga appliquer ko nekul farata maintenant da ngay da nga leen di soxla manam daf la bëgg wax ne la loolu nga wara fa ci soxol mais sauf que ñom da nga leen soxla pour lan pour yenn mbir yi nga xamantene leer nañ effectivement parce que ñom dañuy dañuy dañuy mën des fois. voilà voilà voilà. à travers tamit ñu mu gisee ak. waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran voilà donc loolu la dégg nga. Mm-hmm. mu ne kon euh, illaa ludul wax jooju noonu borom xam-xam yi indi. Mm-hmm. bu fekkente ne ajmaat dafa dëppoo. Mm-hmm. al ummatu xeet bi yëpp alayhi ci wax jooju bu dee ijmaa la. kooku nag moom fa innahu li wér bu wóor mooy boobaa xiina isin jamono jooja. يحرم داي داي حرام خرقه خط اجماع بوب قاف لا دو فا دو خرفه خرقه لا ويقال تديف نخ يا سبحان الله لي ان شاء الله خمنا ني موم بنين بروجي بي بيتيتر موي والله توبات ليفر بي اديتي كو خوما اسكو جواهر الماني ني لا ميل وا ني لا ميل كاي مي سبحان الله il faut que ñu éditer wat li mais nak jawahir maani gisna ben euh, sept sukerich waaw da de la bu ko def corriger voilà bindiko masque ko tout bind ko vraiment bind yu baax ba pare dafa sukkandikoo ci nu sax yi yu mhm. kii voilà vraiment quoi. Mhm. Mhm. moom moom problème am jeex na daa mel ne. léegi mu des problème mu rima dégg nga. ah wa na def na wax fil aaxirati ci àllaaxira li man képp koo xam ne wala da indi jural indi na fii ahkaami shariati ci àtte sharia yi. maa loo xam ne lay sa xaar bokku ci woon. danañ ne ko hee li ana lan moo tax zitta nga yokk fii ahkaami shariati ci attey sharia nabi yoon bi bi mu tëraloon nabi yekk ci sab yonent mhm. wama lam yanzil ak tamit loo xamante ne maa ak lépp loo xam ne lam yanzil wàccewul woon bi yii ci moom min sultaanin ci benn lay lan moo tax ngay jël ay wax di ko yokk ci diine ji ci say xalaat wala ci say kii say yonent li mu indi loo xam ne amul benn lay bu tukkee ci yàlla bu ko wax lu tax mhm. hal ndax anta yow aalamu yaa gën a xam bi masaalixel ummati ci lay yéwénal mbiru xeet bi minhu ci ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ko gën a xam am wala bokk rasulullaay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lam yóbbu lox dafa jotalewul kullama lépp loo xam te na umira digaloon nañ ko bi tabliri yi ci mu jottali ko am wala bokk lam yu umar dañ koo digalul bi ci mu jottali ko fa in qaala bu waxee bil aw yee ni ci ñaari wax yu njëkk yi kafara day weddi yàlla day nekk yéefér non c'est osé quoi c'est vraiment osé. Hein? yàlla nañu yàlla eh, de loolu nag dafa ndànk loolu ni ni mu wax ni ci muccu bari ah ni muccu ci nil ak yi seen mbir mi oui mon je pense que oui li wax ci di ci lo xamne ne xamal ni lepp lo wax ne li baax na wala li bonna joxe nga àtte légui bu fekkente ne da nga japp ne yalla moko wax parce que bo joxe nangam baax na wala nangam bonna moy wax nga àtte. te atté ci yalla rek la wara a inul hukmu illa lillah atté ci yalla rek la wara a donc bala nit di wax na xol bu baax limi wax lan la bala muy joxe atté te atté ci yalla rek la wara a wax jooju su fekente ne wax jooju tukkeewul mom ci lumu xamé pa lumu yaakar lumu xamé ci téré yalla bi wala ci sunna yonent sallallahu alayhi wasallam wala lu ca borom xam-xam ya ko xam wax kon wo na xam wax na wax du garam te boobaa moo ko waaj moom lii lii moo ko lii dinañ ko ko laaj yow mal xiyaamet mu ne kon nag mhm. waaw bu waxee ne bu waxee ne déedéet man bu nee man maa gën a xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii yéwénal mbiru xeet bi day nekk yéefér bu waxee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam jotulewul mbir day nekk yéefér fa maa baqiya kon du des illa saalis lu dul ñetteel bi waxuwate mooy innahu ne kat moom lam yàtti dikkawul bi moom sallallahu loolu rek lay wax naan ah lii kat yonent bi dikkewu ko fa yuqaalu ñu ne ko shay'an mbir moo xam ne nag moom lam ya'mur dikk diggalewul bi ci moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa tarakate mu bàyyi al amra bihi ci mbir moomu rahmatan mu nekk yërmande li ummati yi ngir xeetam fa li ayi shay'in ana ban mbir moo tax zittahu nga koy yokk wa amarta bihi te nga koy digle lu tax ngay digle di yokk loo xamante ne yonent bi sallallahu daf ko bàyyi woot loolu <laughs> yaatale ko fi tawbiixi ci ñu ñu di ko ŋàññ di ko yedd xattaa mbete ah mm-hmm. yawat du mu mébét annahu nekkat moom lam yakun ni aka neexoon mu bañoon a nekk koo xam ne wóoli de wala da dana dana indi dana juddool dana indi fi shariati ci sharia bi xokman benn att bu mën a doon intaha fi la wax ji mm-hmm. mm-hmm. moo tax mu ne wa min huna ñu yem fi incha allah ok kon xam naa incha allahu taala beneen yoon ñu yeggale ko. incha allah yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy dégg te topp. amiin yaa rabbi te topp li nga xam ne mooy sunna sayyidul mursalin. salawaatullahi wa salaamuhu ila yawmi ddin wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin